Serigne Abdoulaye Diop xaas di ko baax ko tëdd tëdd tëdd ñu ngi leen di nuyu moo nekk soxnaam bi dugg si ñu ngi leen seen sang bi

bu baax euh, vraiment di la di la ci safar bi nga xamante ni sarak muy bàjjan mboose organisé waat na ko fii ci amoon si mhm, asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam cant gi aussi nuyoo bi ak cant bi dafa am fu ñu commencé maanaam dafa am suñu waajur boo xamante ni ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuuba ak sëñ Fallu moom lañu fi desee muy suñu papa Cheikh mbay Dieng mu sëñ Fallou nga xamante ni suñu baay bi ñu meññ bi fi bàyyi ko ci loxoom lañu ñu bàyyi ñu bokk ndey mu doon rakkam mu des fi moom kese mi ngi ci kaw moom lañuy jiital ci nuyoo bi bon di ci teg sama yaay mi ngi fi bëgg fàllu di ci teg sama rakk yu jigéen yi ak sama rakk yu góor yi bon di kontaan tamit ci bis bi lool surtout mu jël ko euh, hommage ko sëñ Galas sëñ Galas nekkoon koo xam ni kenn rek la ci ñun tamit waaw li ma leen wax léegi dëgg la sama soxna bi may denc nii am ak moom doom bu jigéen taawloog moom tudde ko sëñ Fallou teg ci keneen tudde ko sëñ Fallou teg ci keneen tudde ko soxna May sama rakk yaa ngi nii taxaw li may wax ni xam nañ ki ma may doom yi ma am moom noonu laa leen tudde ñoom ñëpp ci loxo sëñ Galas la jaar ba ma jot mu nekkoon kilifa bu disponible ku naroon na doon baayam ku baax ku am yëg ci nit tamit ba pare bon mboose mi mu jël ko def koon taalibe mais daf ko defoon rakkam la ko defoon di wax ak moom ay secret am sëñ Galas da daan wax ak mboose ay secret am man sax am na loo xam daan na mu ko nëbb waaye mboose mi musu ko nëbb dara bon di def saa yu samedi bi ci njëkk mu may ñu màggal goo xam ni kër ga dafal ñu fa cant gu rëy goo xam ni presque géejuwaay yëpp ci doon ñëw nekkoon ku baax ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te yéexe ñu yàlla xare ko àjjana si mu fekki maamam borom ku baax euh, seen solo seen ak ki nga xamante ni moom moo di yoonu murit waaye tamit ki nga xam ne moom mooy sëñ galas sànq li nga doon wax tax mun nga ci ci suñu waajur waaw dama doon wax ni rek suñu waajur bu jigéen ki ko meññ Eh, alaaji malik moo ko tafsiral tafsiru alquran la sama yaay ci jëm boppam sëñ fàllu moo ko nangu nangul boppam ci tijaan yóbbul ko boppam jëlal téyel ko boppam muy soxna Binta Mbay fëgg bëgg fàllu bañ na ko ba juróom-ñeenti ñi eh, sëñ lay tak waaw nekk soxna su baax lool soxna su lool sax soxna soo xamante ñun képp koo xamante ne suñu xarit la ba suñu nit la man toog naa sama xarit ba taay ba taay ñun ma booy man moo sañoon se yaay moy doon sama yaay barki sëñ Tuuba soxna soo xam ni kenn musu ta gis doom yu mu jur kenn musu ta gis meram musoo koo def lu ko naqari mu ko ba xam ko ba loolu dafa dem ba daf ñu ko nàmpatal tellement sama rak yu góor yi ñëwuñu mais sama rakk bu jigéen bi kii mooy mag gis nga tey lu mat ñetti fan a ngi wala ñeenti fan mu bàyyi léppam ñëw taxaw si mboosa mboosa mooy caat waaw mooy caat mais seen mag a ngi nii ki toogoon fële mooy topp muy seelaw be waaw ñu nekk ñoo xamante ni ay rakk yu baax lañu rakk yoo xam ne yu am yar lañu maa leen yar sama loxo bi ñoom ñëpp nag li nekk ci ñoom rek xam naa ko waaw te lépp lu ñuy def xam nga nit na génn ci mbedd mi ñu naan dafa baax dafa baax mais mbaax googu ñuy def ci ñun lañ ko njëkkee ci ñun ñi nga xam ñooy seen kilifa ci lañ ko njëkkee man damay toog ba caag sama rakk yi kenn surtout ku mag ki moo ko commencé maretu mi moo ko commencé damay toog ba caag mu daal di ni ma xool sa wéef ma xool fekk ci vingt mille mu ma maa la ko yónnee loolu la tàmmal ñoom mboose ba mboose di ko def ñu tàmmal ko jàngal ko ba fi mu nekk nii mu wëlbatiku nit ku baax mboose mooy nit ku baax xam nga lu tax mbaax gi muy def ci ay magam la ko commencé ak ci ay waajuram sama yaay nu muy màgget màgget noonu guddi gu ca ginaar lay reere mboose ko koy jox guddi jot wutal na ko lu nekk ventilateur frigo wutal na ko lépp ci màgget moo xam soxlaatul dara yenn saa yi mu toog guddi ba caag mu ñëw seet si ko mais loolu lépp muy def yàlla xam nañ ci magam ji la ko gisee taawam bii waaw ñoom mboose ci ñi lay compier ba baax ñun dañ doon wax naan ah mboose mi de li mu doon caat moo tax waaye fi mu nekk nii ñu ngi koy ñaanal parce que mi ngi ñu toppatoo ñun ñëpp mi ngi toppatoo famille bi yëpp waaw fépp fu moromam yegg rek mën na faa yegg wala mu yegg fu ko waaw fépp fu moroomam yegg mën na fa yegg wala mu fekk yegg fu ko raw fuñ toll nag ñu ngi koy ñaanool bu baax a baax waaw yàlla li mu nekk nii yàlla defal ko ci taw feex defal ko ci ndam fu mu teg tànkam rek yàlla na mën a teg beneen ci kaw jàll fu mu teg tànkam yàlla na mën a teg beneen ci kaw jàll. itam ak Soumboulou Bathily ah parce que gis nañu à chaque fois moom Mbossé dafay wax digganteem ak Soumboulou Bathily xam la ni seen ñaari yaay yi ñoo doon ànd. mu ci doon wax. waaw loolu mu wax aussi dëgg la. Euh, Sumbulu ak Mboose ni ñu mel ñoom ñaar ni seen ñaar yaay mel sax mel ñu ko yaay Sumbulu daaw fas dara te woowal yaay mbose waaw bala mu daan def dara dam naan wool leen ma Binta may ñu woo sama yaay mu ñëw tëjoog moom wax li ñuy wax def li ñuy def booba temps Sumbulu ak xamante wuñu booba temps ñoom xamante yàlla def ñoom ñaar ñu dem di dem ba yàlla boole leen ci milieu bi ñu xamante bi ñu xamante fi nekk nii ñoom ñaar ay complice lañu li ñu waxante ñoom ñaar duñ ko waxante kenn dèjà ki toogoon fii di wax Baye Fall bi doon wax nii am na doom boo xamante ni sumbulu lañ ko mboosa defoon sumbulu laa koy tudde sumbulu la ko tuddee sumbulu moo ñëw tudd si xale bi waaw loolu nag ñu bari xam naa ñoom waxuñu ko fii waw mais mboosa comme dem na xam na ni caatlu na amul mënul am doom mais doomam am doom mu jël ko tuddee ko sumbulu waaw loolu am na seen diggante waaw ñu nekk ñaar ñoo xam ne ay complice lañu même su ma juumul boo matul sumbulu waroon na ñëw tey waaw xaw ma ndax dina ñëwum déet mbégte la tey bu ma demee ba gis sa rakk muy bokk ci série yoo xam ne ay série la yoo xam ne Sénégal dañ koy bàyyi xel bu baax a baax quand même euh, Mbossé ci biir Bété Bété way way non Mbossé ci biir Bété Bété benn genre phénomène la ci boo xamante ni bon en général peut-être génnam sax bari waaye saa yu génnee rek day def effet quoi waaw saa yu génnee rek effet waaw saa waaw saa yu génnee le matin samay copain dinañ ma woo ne ma mais sa booy bi yow da ngay waar sa booy phénomène la quoi saa yu génnee rek def effet man quoi c'est normal noonu doomu artiste la te li muy def nii yaayam moo ci njëkk sama moko moo njëkk ci loolu avant sëñ Fallou di ko nangu bon dafa joué sax ay pièces yu bëri bon joué na ci mook Babou Faye Babou fay benn xam naa artiste la boo xamante ni mook ay Abou Camara yooyu maire bu joué na ñoom ay séri série yu bari ba bañ na ko ba almetu kafaal bi mook Babou Faye ñoo ko naan ànd di ko publicité dans tout Sénégal ñoo doon def tour Sénégal di wër di ko publicité maire bi tamit artiste la woon euh, fi ñuy tàggatoo mooy Mbose euh, gis nañu ko moom mu nekk bàjjan bu Dakar mm-hmm. ah beneen bàjjan bi nekk Thiès euh, wax nañu ne nag ñoom ñaar ay mbokk lañu yu jege lool gis nañu li doxoon ci seen diggante vraiment léegi tànku jaam jaam am na ci quand tey ban ban côté ngeen mbokkee ak bàjjan bi nga xam ne moo dëkk Thiès. bon bàjjan ni mu bokkee moom mooy ci tànku ndey lañ bokkee quoi waaw ci tànku ndey lañ bokkee sooy seet. seen yaay ñoom ñu koy wax Ajara Mbay ak suñu yaay Binta Mbay ñoo bokk baay waaw waaw ak euh, kii nu mu ak Bella waaw waaw non loolu affaire aar bi la rek ay xale lañu fougue de jeunesse la quoi aar bi la rek ñoom ñaar ñuy waxante ni mais bu ñu boo leen fekkoon ñu toog en famille da nga naan ñaar ñu ñoo doon wax boo leen toog da nga naan ñaar ñu mais fougue de jeunesse la nga xamante ne ci biir ci biir aar bi la bon ku ci nekk day wane sa bopp waaw. waaw waaw waaw moo saf na sap moom kay moom dafa xaw woole mi ku quoi saf na sap quoi <laughs> allez merci jërëjëf jërë ngeen ñun tamit kontaan nañ ci yéen quoi ñu ngi leen di delloo njukkal gis nañ seen taxawaay li ngeen di def ni aussi bëgg ko jàppale la waaw ni ngeen ko ni ngeen ko jàppale nii da ngeen mu avancer jëm ci kanam yéen ñëpp yal na leen yàlla jàppale dafa leen avancement yéen ñëpp seen liggéey defal leen jàmm ak tawféex bu bëree bëree bari voilà merci beaucoup ok